Euh, dina rek euh, école bi nuñ ko créer fii dina régler problème yi bëri dina régler

leen topp ñu def aussi seen wargal puisque école bi affaire publique la ñëpp a ci war a jàpp Aliou Thiam bu jàppee fii ñiy jàpp fële je pense que suñu doom yi dinañu dem kanam. mën naa naan ne liggéey rek la. ñëpp a liggéey ah, ñëpp liggéey liggéey kese la xëy naat rek yàlla moo def rek ma nekk ci euh, ci kanamu département bi mais liggéey rek moo am euh, solo lu ci ñaanlu yàlla liggéey boobu yàlla def ci barke xale yi ci génn xale yi département bi yëpp yàlla def leen barke seen njàng dem kanam. tey ni bés bi nii muy pose de première pierre fekk nag cité bi tey nii euh, cité bu ngand la donc logement dafa war a dem ba deux mille huit cent cinquante logements.

ñun yàlla def na tey nii promoteur bi bàyyi na fi site yu bëri am na site boo xam ne pour case des tout petits am na site boo xam ne pour une école maternelle am na site pour centre d'autisme ak site bii nii nii bu ñu nekk tey nii mooy pour école élémentaire si ginnaaw nii mooy pour classe kii euh, école secondaire vois donc lu gën a jafe am nañ ko pare moo taxoon nag ñu ne ah ñu ne du ñu xaar dëgg sax état peut bon moo ci war a jàpp mais puisque état bi aussi dafa bëri ay charges ñun dañu war a montrer ni ñun sont des citoyens donc dañuy jitu ba pare nag ñaan dimbal waaw ci état bi ak ñenen ko xamné vraiment mënu ci japp ñu lançons un appel à tout le monde vraiment pour que suñu doom aussi bay di jégané fi di jën fi di dem fu sori fa jang au moins fi ñu am fi ben école bo xamné fi lay nak ci cité bi parce que fi du école bo xamné cité bi si la parce que fi yépp ay village ñu wër ay Dougar tu vois ñoom village yi bëri ñoo rek donc ñoom ñëpp ñu ci bénéficier wu donc lors on a senti vraiment la nécessité l'urgence que vraiment école bi taxaw ñun d'abord jël suñu propre initiative ak aussi l'aide des partenaires voilà nous bëggone vraiment y euh, def tu xew dafa ñu xewal ba li ñu bëbët am ñu am ko